namm ci sa waay kii li ma namm ci moom nee na jinjeer la dama koy naan te jinjeer góor moo koy naan ñi xam na li may wax. kan ñu lan ma ne jinjeer li muy saf-saf. góor yàlla moo koy naan te kii dama koy. xoolal gars yi ñu ñu loo wax. naan ko ba mu set moo xañ moo xañ a kaas. Siré Jalla ginnaaw bu ma sant Siré Dia waaw ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sumay ñaari waajur maa ngi sant waa Thiès mbooloo di sant sama président di sant samay ñaari coach Ndiaye Diarra Mam Sa di sant sama tëdd fil Mouranda di sant waa Kër Cheikh Kër Mahelas Taaxi Kaw di sant waa Jaxaw sama waa Kër Maam di sant waa Touba di sant ñi ma war a jàppale ñëpp ngi leen woo ci jour bii bi sama premier combat laa ko def kii dafa bari wax topp na ma fu ne di ma laaj ku ma moromam arrêté tour te la 23 incha allahu rabbi si rajo damaa yónni yàkkamti ma damay ñëw xale waa yow dama lay ñëw laal la rek nga toog xamoo ma nag duñ leer. waaw alhamdulilah bi seytaan rajim bisimilah rahmaan rahim maa ngi sant yàlla di sant di sant waa ñaari waajur di sant waa Daaru Salaam sant waa Insa di sant gaa yëpp. waaye sant gaa yëpp ëllëg yi yëpp maa ngi sant waa Mboro waa Simal Diop di wax village yëpp maa ngi gërëm waaw del wax kii. léegi dama ni ko jinjeer nga mais buur moo lay naan dinaa la naan moxoñ a gàtt. dégg nga ko ah mais lim naan doon na ko. jinjeer boo ñëw di nga di 45 maa ngi woon Ngingue waaw di woo sama gars yi ñoom Kapa Waalo gars yëpp moom du jéem xam nga mafia trente-dix su ma leen fàtte gars yi Fanta Salam ñoom Bilal ñoom gars ñoom Bër te eh, di sax ñoom Moore Moore gars yi mooy jàpp ci Pamba kañ la. kon sama koñ bi maa koy recevoir dama koy teel a xaar mu ñëw ma jàpp ko su ma ko teel a wax le 23 Boy Niang Boy Niang Boy Niang Touba Gueye Boy Faye Nduxuf Boy Faye Nduxuf eh waaye dem leen toog toog waaw am leen discipline waaye